mboolem luy bëgg-bëggu intérêt bu doomu aadama bi di bëgg suñu boroom wax na ne la ilaha illa allah wéetal suñu boroom ak topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo leen war a gënal loola bu demee sëratu tawba andi na fa aaya boo xam ne tudd na fa mboolem masale muy ay njariñ yoo xam ne doomu aadama dana ko di topp léeg-léeg ba mu dox digganteem ak li ko laa ilaha illallah di joxañ borom nag ne koo xam ne am na benn bëgg-bëgg ba dox sa diggante ni nga war a bëggee tawxid war koo bëggee sa borom war koo bëggee yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci topp ko loolee dox na sa digganteeg loola nee na loolu day ab rëcc lay doon bu ëllëgee moom lay wax ne qul in kaana abaaukum wa abnaaukum wa ixwaanukum wa aswaajukum wa asiratukum wa amwaalun iqtaraftumuha wa tijaratun taxtawna kasaadaha wa masaakinu tardawnaha ahabba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihaadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati allahu bi amri wallahu la yahdi qawma alfasiqin nga defee aaya boobu boo ko seetee mbooleem njariñ yi doomu aadama di wut dëxañ na ko ci biir parce que la jiitu muy ak mbokk mbokk defe naa dara gënu cee jege baay wala doom bu dee ay àndandoo dara gënu cee jege soxna wala borom kër jabar wala jëkkër bu dee ñooy jëmbadikoo itam say mbokk ñoo ca gën a jege mu tudd alal yu bare bare bari nag ci intérêt yépp moom alal moo ca dëxañu wa amwaalum iqtaraftumuha wala mu doon ak yaxantu ak jaay ak jënd dafay ci alal la dugg tax saw na kasaadaha wala mu doon barab boo xam ne da nga koo bëgg da nga fa bëgg a dëkk barab ba dafa neex ci yow ndax day say cosaan wala dafa neex ci saw dundin mu ne bu fekkee mbir yooyu nag ahabba ilaykum min allahi wa rasul mbir yooyu moo leen gënal seen borom tabaraka wa taala ci ni ngeen ko war a wéetal ak ni ngeen ko war a jaamoo mbir yooyu dana dox seen digganteeg loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni ngeen ko war a roye am na ci benn ci mbir yooyu yuy dox seen digganteeg loolu borom bi nee na kon fatarabatu kon nag toog leen xaar hatta yatiya allahu bi amri ba yàlla ñëw andi la lu tëkku bu rëy rëy rëy ba tax na kon jullit bi wéetal borom bi tabaraka wa taala moo ko war a gën a léppam loolu moo taxoon saxaaba yi doon daanu ci tooli xare yi défendre kalimatu la ilaha illallah rek la woon loolu moo taxoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon daj coono yi mu doon daj ca makka moo ki saxaabaam gàddaay ñëw madina daje yi mu doon daje yéefar yépp kalimatu la ilaha illallah la woon kon kalima boobu du lu woyof du lu woyof te itam lépp lu nit ki am war na koo dépenser pour aare ko kaddu googu pour mu defe ko ndax mooy li nga xam ne moo gën a valeur yi lépp koo xam ne am nga ko ñàkkuloo dara waaye koo xam ne ñàkk nga ko itam nag desewuloo dara kon il faut ñu joxaat ko valeur boobu mu am suñu borom mi ñuy tuddal ci alxuraan ñu daj ay natt yu metti te ba muy wax la waral natt yi daf ne wa ma naqamu minhum illa an yuminu billahi aziz ñooñu ñu doon taal taali safara di leen sànni ca biir ashabul uxdud annaari zatil waqud intum alayha qu'ud wa hum ala ma yafaluuna bil muminina sihir te kat wa ma naqamu minhum jotewuñu ñoom dara illa an yuminu billahi aziz defuñu leen lu may dañoo gëm yàlla am tawfiq rek ci lañu leen sànnee ci biir ay paxe safara di leen nag waaye taxul ñu dellu gannaaw itam nag kon nag li nga xam ne mbir mi nekkul loo xam ne lu woyof la nekkul loo xam ne lu yomb la ndax li ci aju moo bari li ci borom bi tabaraka wa taala jige moo rëy te mooy aljanna te aljanna foofa la xéwal yem wa ida raayta samma raayta naiman wa mulkan kabira li soo gisee la nekk foofee ci biir aljanna foofee nga xam ne fa la xéewal dëgg nekk fa la ngóor dëgg dëgg dëgg nekk ci doomu adama bi yi muy daw yëpp loolu rek lay wut te foofa la am nag kon njëg ga koy joxe itam nag du nekk njëg goo xam ne gu woyof lay doon ah loolu ñu limoon kon ci xam gi mënula ñàkk xam gi na dëgër ba nekk yaqiin te itam nit ki na am xabool mooy na ko nangu su nangoo na wommatu def li ko taw xij laaj ñetteel ba juróomeel ba na bëgg kalimatu tawxid boobu bëgg ñëñ tawxid ñu gënal ko képp koo xam ne amul tawxid na ca am nag ak sellal itam na am ak sellal ci tawxid boobu te itam nag na ca sax ba dee fekk ko ca su ko defee day daal di doon koo xam ne la borom bi tabaraka wa taala jige te ku saxal kalima rek boobu ba dajeeg moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne laa yalqa allaha bihima abdun xayru shaakin fa yuxjabu anil janna mu ñaari baati sahaada yooyu nee na ab jaam bu dajeeg borom bi tabaraka wa taala fekk mu amee ko te amu ca lu muy sikki sàkka ñuy doxa ci diggante ak aljanna kon ñu tudd lenn ci samaraatu ak tawxid meññat wala njariñ yi nga xam ne dana juddoo ci tawxid su fekkee nit ci dëggal na ko suñu borom tabaraka wa taala moo xam la mu ca denc lépp ci ay njëriñ waaye am na lu mu nu ci tuddal yooyee danañ ko tudd lenn bokk na ci ci am tawxid gëm yàlla ngëm yàlla bu wér te bokkaale ak yàlla dara kooku seytaane du am ci moomu yoon suñu borom mu ne innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun iblis ak li muy bari bari bari bari pouvoir suñu borom nee na amul benn autorité amul benn sañ-sañ ci koo xam ne da nga gëm sa borom ci wéetal ko boo loolu ci dara nee na kooku iblis amul ci yow aw yoon te kooku nag mooy koo xam ne mbiram yëpp ci yàlla la koy wéer wa ala rabbihim yatawakkalun bu defee sabab yi yu dagan yi mu war a def la ca def daf koy bàyyee boromam kooku seytaane amul ci moomu yoon loolu tawxiid moo koy maye ñaareel ba alhidaayatu tawfiq la njub goo xam ne njubug tawfiq la suñu borom moo la koy baaxee xam ngeen ne njub day ñaar am na njubug tegtal kooku moom defal nañ ko yëpp kooku moom la yonent yi man moom la nit man yonent yi li ñu màgg màgg màgg weesu wuñ hidaayatu dara la tegtal la yoon wi lañ man moom la borom bi ne yonent bi alayhi salaatu wasallam wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim waaye nee na ko feneen innaka laa tahdi xam ne nee na ko fii la tahdi fii mu ne ko laa tahdi kon wala xam ne ñaari hidaaya am na am na bu man am na bu mënut wa innaka la tahdi ila siratul mustaqim man ngaa wane siratul mustaqim man ngaa wan nit ñi yoon wi teg leen ci yoon wax ne ku ko wàcc da nga taxe waaye nag hidaayatu tawfiq la mooy téye nit ki ba bu ko neexee bu ko naqaree day dem ci yoon bi kooku nee na ko maa ko man innaka laa tahdi man ahbab walakin allaha yahdi man yasha waaye borom bi mooy jubal ku ko sax hidaayatu tawfiq yi boobu nag la borom bi ne danaa ko defal ñi nga xam ne am nañu ngëm am nañu tawfiq wa inna allaha la haadi alladina amanu ila siratin mustaqim ñi gëm yàlla te ngëm yàlla gi dëggu borom bi nee ne maa leen di tegal sama bopp ci siratin mustaqim defal leen tawfiq dutuñu ko mën a fee wàcc yàlla wax ne inna alladina amanu wa amilu salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim ñi nga xam ne gëm nañ yàlla tey jëf lu baax suñ borom ci seen sababu ngëm googu ci la leen di gindee yahdihim rabbuhum bi imanihim bi sababi imanihim kon iman bu dëggoo te wér te sell suñu borom dala ciy defal tawfiq defal la hidaaya nga jaar ci siraatal mustaqim jalla waxaat ne wa man yumin billahi yahdi xalba wa man yumin billah yahdi xalba ku gëm yàlla ngëm ne toujours buñ ko waxee tawxid baa tax ñuy wax waaye saa bu ca leneen raxee lu dul tawxid tuddatul iman bi nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala ne ku gëm yàlla mu jindi sa xol bokk na ca la muy jural jaam bi itam moom tawxid ak sabaatu alal xaq fi dunia wal axira suñu borom daf koy saxal ci dëgg ci adduna ak alaxira borom bi ne wa bassir alladina amanu anna lahum xadama sidqin inda rabbihim wa bassir dëgalal ñi gëm yàlla ne day ñoom am nañu ndëgg bu dëgër fa seen borom keroog bu nit ñi tarxiis ci siraat ñoom dañu tarxiis kaddu bu dëgg bu dëgër tànk bu sax lañ am adama sadiqin inda rabbihim dellu wax ne yusabbitu llahu alladina amanu bil qawli sabit fi l xayaati dunia wa fi l axira wa yudillu llahu zalimin wa yafalu llahu ma yasha wërt ija nee na borom bi dana saxal layu ñi nga xam ne dañoo gëm suñu borom tabaraka wa taala bu ànd ak tawxid fii ci àdduna seen lay day dëgër te jub ku ñu waxal rek da nga yëg ne caaxaan ci yow la féete boo ko nangoo boo ko nangu ci àllaaxira itam dañuy am tontu lu jub lu leer bu leen malaaka yi laajee waaye tontu loolu rek pour nga mën koo am day fekk nga saxaloon ko fii fii ci àdduna nga amoon ilmal yaqin ci kàddu googu borom bi dana wax ne qul nazalahu ruuxul qudus min rabbika bil xaq li yusabbita alladina amanu wa hudan wa busra lil muslimin nee na alquran jii day ruuxul qudus moo koy wàcce ci ndigalu borom bi te mooy jibril ngir saxal dëgëral ñi nga xam ne dañuy gëm yàlla alquran jii nekk ak njub nekk ak mbégte ci képp koo xam ne ab jullit bokk na ci njëriñu tawxiid itam ku ko am suñu borom walay aar suñu borom walay aar ñu bare bare bare yi ñuy sonn lenn lu nekk ñu dugg te kenn ku nekk ñu seete ko ne dañoo bëgg a aaru dañoo bëgg seen liggéey jëm kanam dañoo bañ ku leen ko dàq dañoo bañ ku leen fexeel fekk na yooyu yépp soo ci bëggee mucc da ngay dellu ci borom bi tabaraka wa taala ndax li borom bi ne wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah njibar am na lu mën a lor la ak njibar am na am na ñu mën a def pexe borom bi ne yata'allamuuna maa yufarriquuna fihi bayna al-mar'i wa zawji mën nañoo def ba tàqale diggante nit ak jabar xam nga diggante bu jegee noonu nañu bëggante te mën a def ay mbir def ay mbir ba jaxase leen ngir jëmbandikoo ay sayaatin waaye nag demal bu làqu ci moom wala ci moroomam waaye demal làqu ci borom bi tabaraka wa taala borom bi ne wa maa hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah mënuñu saa lor kenn kenn kenn lu dul dafa ànd ak ndigalul borom bi tabaraka wa taala ànd ak coobareel kon nag da ngay dellu ci moom borom bi inna allaha yudaafiu an alladina amanu yàlla mooy aar mooy défendre ñi nga xam ne dañu gëm yàlla am tawxid boolewuñu yàlla dara ñooñu li gën ci ñoom ci ay lor lépp bu ñu yëgee bu ñu yëgul suñu borom moo leen di aar moo leen di koy fanqal kon nag kay jëma dimbali ko leneen loo xam ne lor jëm moo ëpp borom bi naa ngeen yaddu'u laman darruhu aqrabu min naf'i keneen koo woote du yàlla nee na loram moo gën a jege njariñam koo fi jëmandikoo te du yàlla mu lor la moo gën a jege mu jariñ ndax ci saa si rek da ngay commencé di lor ne koo dem na ñaanal moom mu la andi weexal waaw weexal bi yaa ngi lor bàyyi nga fi dara te yow xamoo yóbbu nga dara am de xamoo li nga yóbbu lu jariñ la am de te yow ba nga fi dara lu am njariñ moom li nga fi ba moom leer na ne am na njariñ te li nga yóbbu rek xamoo si ne njariñ jëm de moo tax mu ne darruhu aqrabu min nafsi la bi'sal mawla wala bi'sal asir kon nag dellu ci borom bi tabaraka wa taala wut ci moom ndimbal loola mooy li nga xam ne mooy dimbali jaam bi te loolu la koy may mooy mu am tawfiq dalla wax ne wa kaana xaqan alayna nasrul muminin borom bi nee na moom moo yeyal ci boppam ci mbaaxam dimbali ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla moo leen di dimbali moo leen di aar bokk na ci li muy maye moom tawxid ak tamkin ci ard jullit ñi bu ñu bëggee dëgër ci kaw suuf dañu wéetal borom bi tabaraka wa taala loolu digub yàlla la jullit ñi tey ci jamono bu ñu seetee ni ñu leen néewale doole ni ñu nasaxe fi mu nekk te dañoo wàcc seen tariqul izza mooy ci seen teraanga nekkoon dañ ko faa wutatul léegi ndax teraanga ja gis nga borom rek ayat sa xoone indahumul izza ndax gaa yi ngeen di topp ndax da ngeen di wut ci ñoom teraanga occident yeeg ñeneen ñi nga xam dañ ci andi leneen lu dul islam jullit ñu bari ni leen dem na nañ ñoo yore teraanga bi borom bi ne ayat sa xoone indahumul izza fa inna al izzata lillahi jamia xanaa xamuñu ne teraanga yàllaa ko yor ngeen di ko wuti ci keneen koo xam ne yoru ko du leen gën a dolli nag bu boobaa lu may suufe lu muy gën a torox borom bi ne maa leen dig xam ngeen ne yàlla lu wa man awfa min allahi bi ahdi yàlla ku ko gën a mën a matale ab digam mu ne waada allahu alladina amanu minkum wa amilu salihat la yastaxlifannahum fi l ard te gën la yastaxlifannahum fi l ard kama staxlafa alladina min qablihim wala yumakkinanna lahum diinahum alladi sada lahum wala yubaddilannahum min baadi xawfihim amnan waaye nag sart yaabuduuna nii laa yusrikuuna bi shay'a wa man kafara ba'da dalik fa ulaika humul fasiqun suratul nur borom bi nee na dig naa ñi gëm yàlla tey jëf-jëf yu baax ne dinaa leen wuutal ci kaw suuf jox leen pouvoir bi ci kaw suuf ñu yore ko comme ni ma ko defale woon ñu leen ci jiitoon di loolu war nañ koo gëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaabaam ba ñuy doog a jóg xam ngeen ne néewoon nañu doole lool jafe-jafe yi ñuy dund rek yoon nañ ña ngay dund yu ko rawoon foofu lañ doon dund mais dem nañu ba lépp nekk ci seen loxo kama saxlafat la si ne ñu xam ne diine ji ni mu néewe doole noona la tàmbalee woon waaye demoon na ba mooy atte mooy def lépp wala yu makki nan na lahum diinahum allati irtada lahum waaye nag diinahum allati irtada lahum diine ji leen yàlla gërëmal waxul diine ji ngeen andi seen bopp gërëmal ko seen bopp diine ji yàlla joxe ndam mooy ji mu gërëm wa raditu lakum al islaama diinan te ba mu koy wax mooy la yonente bi alayhi salatu wasalaam nekkoon ak i saxaabam fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad istadaw bu ko nee na yonente bi alayhi salatu wasalaam ku gëm lu mel ne lii nga gëm yaa say saxaaba gindiku na kon nag ku ne ci loo xam ne wuute naag la yonente bi alayhi salatu wasalaam nekkoon ba def di ko yaakaar yàlla dara yàlla diggu la ko ci li mu wax lu leer la fa in amanu bi misli bi misli ma amantum bihi faqad istadaw wa in tawallaw rek fa innama hum fi shiqaq waaw bu fekkee nag dëgg nañ nag ñu ngi ci bio kii jaay kii ci jaay kii moo tax jullit ñi fu ne parce que bu ne gëddee xeetu jullit bu ne gëddee gis ñun ñëpp buñ nekkoon ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi nit ñi maa amantu bii ñëpp benn la ñu doon waaye fa in tawallaw nag bu ko kenn ku ne yokkee loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam xamu ko woon nag ñaata kuréel jullit koy am kenn du xam ne fa innama hum fi shiqaq fi shiqaq ci tàqali kooku ŋaayoo ko juyoo ci la ñuy nekk bu boobaa te boobaa loolu ak néew doole la la ñu ci doon kon tawxid su ko jullit ñi amoon dellu ci borom bi tabaraka wa taala loolu da leen di mayaat doole ci kaw suuf bokk na ci lan leen di may waxdatul kalima wa sab seen kaddu day nekkat benn seeni taxawaay nekkat benn borom ma wax innamal muminuuna ixwa foofu dafa xibaare digliwu ko sax ne nañ ko doon waaye daf ne doon nañ ko ñi gëm yàlla su ngëm ji wéré ñëpp am tawxid rek automatiquement dañuy nekk ay bokk kon bu saa bu juyoo amee ci biir jullit bi rek kon fas fasee ñoo ju ñoo juyoo ñoo bokkut parce que kon ñoom ñëpp wéetal borom bi tabaraka wa taala la dañuy daal di nekk ay bokk innama almuminuuna ixwatun suñ nekkay bokk rek dañuy daal di nekk benn mu ne kon fa aslixu bayna axawaykum wattaqu llaha laallakum turhamun dellu wax yonente bi alayhi salatu wasalam huwa allati ayyadaka bi nasrihi wa bil muminin wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fi l ardi jamian ma allafta bayna qulubihim li yonente bi alayhi salatu wasalam man maa la dëgëral ci dimbali gi ma la dimbali waaye julit ñi ma la booleel boole seen xol yi wa allafa bayna qulubi iman mooy boole xol yi te nee na boo dépensé woon mbooleem li ci kaw suuf ngir bëgg a boole ay xol bu sot law anfaqta ma fi ardi jami'an ma allafta bayna qulubi bu ko defee ne ay mbooloo ay intérêt yu ñu bokk ñu bokk intérêt yu ne ñu ne mën nañoo nekk benn ndax noo bokk ay intérêt noo bokk bu ñuy liggéey noo bokk lu ñuy yëngu kon nan nekk benn déedéet duñu mën a nekk benn mën nañoo nekk benn dajale seeni jëmm taxsabuhum jami'an waaye wa qulubuhum shatta bépp xol boo xam ne iman suuliwu ko ak moroomum xolam dañoo féewaloo dañu taxale ko jëmm yi nag ñoo dajaloo kenn ku nekk di jéem a exploité boroomam waaye xol yi moom ànd kon bépp ànd boo xam ne iman lanu ko la ca borom ba tabaraka wa taala wax rek al aqillaau yawma idin baaduhum li baadin adu illa al muttaqin ñoo fi gis ñu xaritoo te ragal yàlla lanul seen xaritoo ga bu yowmal xiyaama ay noon la ñuy def nga bëri ci dem di rëcc naan ak a neexoon diw du sama xarit ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا kon lépp koo xaritoon bu ñu wax gën sama xarit benn ba tey gën ak a neexoon du sama xarit يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ñu ne ko waa lu mu la def mu ne لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خصيما kooka day moo ma réeraloon bu ma saa bëgg a topp la alquran wax bëgg a topp li sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax mu andil ma leneen ne ma yooyu ñu paase la wala nangam a ko gën wala ñu koy wax dañ ko déggul wala ñu koy wax nangam fexe ba yóbbule ca lam nekk moom yowal xiyaam nag ba koo ko jàkkaarloo mujj gën nag mu mbatt baaraamam day cax wa yowma yaabdu zalimu ala yadi nit loolu tar bi rëcc bu tar la mbatt sa loxo day cax yaa lay sa ni taxasu ma rasuli sabila kon loolu yaa lay sa jooju ñu nga xam ne ñu ëccee gun te wéegul ci loolu kon fal na taxit ma rasuli sabila waaw ah la yaa layta moom du del fi de layta ñu ne ëggun ci layta ëjëgun ci layta kon nag gannaaw gars yi dañ dem naan yaa layta ni taxastu ma ar rasuli sabila ak a neexoon ma jaaroon yoon yoon ci jaaroon ñun wéegul ci ñun de wéegul de fal na taxit ma ar rasuli sabila weneen yoon woo fi jaar da nga ko rëcc kala ca jaarale xaritoo da nga xaritoo woon ak moom da nga ko rëcc da nga ko nekk ni bu keroog alquran moom ko nekk ni te doon du doon luy rëcc kon bennoo jullit ñi ñu ngi ko mën a amee ci bennoo ci wéetal suñu borom tabaraka wa taala suñu wéetale borom bi tabaraka wa taala ci biir loolu ci la ñuy amee ñu itam nekk benn borom bi ne fattaqullah wa aslihu zaata baynikum wa atiqu llah wa rasulahu in kuntum muminin ragal leen borom bi tabaraka wa taala te ngeen defar seen diggante jullit yi nañu defar seen diggante te rek topp yàlla comme yonentam nee na day loolu ngeen war a def su fekkente ne gëm ngeen yàlla bokk na ci li muy maye moom tawxid arraqa wa numu iqtisad maanaam développement économique boo xam ne naataange di yaatu ñëpp ne ci jàmm di dund ñu bari dañoo jàpp ne wàllu matériel rek moo koy maye boo gisee état yi seen erreur dëgg dëgg dëgg dañoo jàpp ne l'islam ak ñi jàngi diine ñooñu bokk dañ leen a jàpp ne ñooñu dañoo génn ci projet de société bi ñu yor ñooñu mënuñ ci participer mënuñoo participer te ñoom matériel dong lañ xool côté matériel waaye même côté matériel bi li ci nit diine yi mën a participer ñoom dañ koo réere parce que nit ki dañ jàpp ne li muy kër kër yi di ko defar rek loolu moo koy jëme kanam mais nit ki ci boppam na nite ba noppi nite ba noppi di def loo xam ne lu koy jariñ lay doon di daw lépp loo xam ne lu koy lor la di lor keneen su ko defee wërsëgam mu bañ koo sukkandiku ci ay moroom yi doomu aadamaam waaye sukkandiku ko ci suñu borom tabaraka wa taala ak ci sabab la su ko defee lam am ci wërsëg itam du ko yàq loolu nag jikko yu mel noonu nag nekk ku wóor itam koo xam ne lu mu moomut fa la koy baax lu ñu ko def loo comme ca war a yem fa la ca yem loolu diine rek moo ko mën a def fii diine rek moo ko mën a def fii ñoom nag bi ñu jàppee nag ne loolu wut ay inspecteur rek ay contrôleur rek fenn fu ne nga wut fa jàpp ne ñooñu ñoo mën a contrôler nit ñi ba may leen amaana li ñu def ñu teg ko ci aw yoon booba lañ jóg la ngay dépensé te salaire ya ngay fay inspecteurs yi ci formation ya nga leen di defar ak salaire ya nga leen di fay ak oto ya nga leen jox ak yooyu yëpp te la ñuy dox du faj correction bi tey la gën a bari ndax kookee li ñaan parce du chef yi laa yox si moom ci boppam mi nekkul amin nekkul ko doy nu muy mën a contrôler nit pour kooku doy bala ngaa mën a doy loo nit yow fekk day fekk nga doy yoon lañ koy fekk ne ko maandu day fekk nga maandu yow waaye la muy bëgg a def ci njaaxum bu dee téeméeri julli la mu koy bëgg a jël nga ne ko maanu mu ne la jëlal juróom fukk yi nga ne ko kon nan ko bokk kooku kooku kooku du fott du fott loolu nag diine rek moo ko bëgg a mën a def ci nit kon julli ñi suñu amee tawxid wéetal borom bi tabaraka wa taala xéwal yi day bari borom bi moo ko liggéey walaw anna ahla al qura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamai wal ard ñu nga barakaat la wax barakaat la wax waxul alal xam nga alal ni ma ko wax dama ko bëgg léegi dama am dërëm saa boo ko yónnee dana la fajali soxla waaye bu demee day toog ne la yónnil keneen seetal keneen waaw boo ko yónnee day toog ne la seetal keneen man dem naa yónnee mais du ma del waaw ba jëloon téeméer tey yónnee ko mu jëgal la ne ci paquet suukar bu del ci de waaw bu ëllëgee boo yónnee seetal keneen koo yónni waaye man toog la bu dee barke ak wërsëg loolu la ñu wute wërsëg ak alal ak xaalis bu dee barke la nag moom kooku moom nee na saa bu demee day jël ci wat toogaat ne la ndax amaat na loo soxla waat moo tax borom bi dafa xanaa alayhi barakat barakat bi mina samaai wal néewul arsaq mais barakat la wax mina samaai wal ard saa bu demee fajali la day ñëwaat toogat di dégluwaat nga amat dinañ nit parce que lu bàyyi ko ci moom risqan min ladunna la ci yàlla la bàyyi ko risqan min ladunna bàyyi ko woon ci nit kooku nag du jeex ndax maa indakum yanfat wa maa inda allahi baaq wërsëg bu bàyyi ko ci yàlla du jeex risqan min ladunna du jeex ndax fa muy jógee du fa jeex kooku nag kon moo tax borom bi ne mu ubbil leen bunti barke yi jógee ci asamaan ak suuf yoo xam ne doomu adama yi dañ koy jariñu te du ànd ak coono bu dox seen diggante jaamu yàlla parce que nag doomu adama war nay bàyyi xel ci li muy wut di ko jariñoo bu mu ko dem ba jël ci taam li ko fi indi woon man a adduna dafa am ñaar li la fi taxane ak li la fi taxa mën a ne lan moo la fi taxane jaamu yàlla waaye lu la fi taxa mën a ne nag liggéey ba am loo def bu ko deful doo fi mën a ne waaye nag li la fi taxa mën a ne bu mu yóbbu programme li la fi taxoon a ne ah ñaar yooyu bu mu ko yóbbu maanaam kii dama fi bëgg a liggéey waaye nag bu ma amul am mbaar bu ma mën a keral du ma fi mën a toog ndax naaj bi daa tàng waaye nag mbaar dong andi wu ma fi mbaar mbaar mi ne ci biir mbaar mi di liggéey moo ma fi indi nga ne ca mbaar ma nag sa programme bépp mbaar mee ba jant bi sox ah jot jotoo pare ci mbaar mi ñu bari fi ne ci loolu lañ def ñu ngay kër kër yi naa wuti kër naa wuti na fekk dañuy mbaar rek tàmbalee guñu liggéey tàmbalee guñu liggéey ñu ngi mbaar ah mbaar mi boo ci nekkee nga def leneen nga bay bokk ci tool bi tuuti doog a ñëwaat ci mbaar mi fari bant mbaar waaye tool bi gën a tàmbalee gu ma bala maa tàmbalee bay daal damay am baar ba ba noppi am ndox bu ma fay naan am aj bu ma fay aje dooga tàmbalee bay nag boo du sa dund ci lay jeex ak dund ci lay jeex kon ñaar yooyu lu jëmbi xammee la lu ma fi taxane ak lu ma fi taxa mën a ne lu la fi taxane jaamu yàlla wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun te pourtant beneen programme bi yàlla nee na man maa ko warlu li la fi taxa mën a ne maa ko warlu wa maa min dabbatin fil ard illa ala llahi rizquha te kilifa gu baax daanaka wax ne yàlla dafa dagg ñaari sas ñaari wama dal benn bi dalloo na benn tasu wama xalaqatul jinna wal insa illa li ya'budun loolu la ko dalloo wama min dabbatin fil ardi illa allahi rizquha moo ko dal mu ne nañ nit ñi dañuy bàyyi sa soowaat yi di bàyyi soow yàlla yi waaw fi mu ne nii wërsëg koo ci gis boppam la ci yaakaar yaakaar boo dee jaamu yàlla rek bu dee yàlla baax na waaw la ñuy bayloo yàlla lim nu bayloo lañ koy bayloo waat koo dee jaamu yàlla bu dee yàlla baax na waaye yàlla bari na yërmande koo ne nag toogal bu liggéey mu ne sii kon du sotti kon du baax waxuma sax bu liggéey waaye boo di ko liggéey liggéey bu normal rek bu dëppoog l'islam mu ne kon du ma am dara waaw léegi ku tënku ci l'islam doo am dara kon ko xam nga ne gëmul ne yàlla wërsëgale koo ne bàyyil riba bàyyil carte bàyyil lu dëgalul yemal rek ci ne l'islam mu ne loolu koo def doo am xaalis kon doo am xaalis bay boo nga toog te pourtant yàlla dañ ne woon jaaral fi nga war a jaar rek ma jox la fam soo fii mën a ci biha foofu loo muy rëst jox leen ci kaw suuf rek ma jox leen ci wërsëg amma jaamu ga rek defal ko sa bopp moom yaa koy def moom ndax moo tax ñu bind léegi da nga bàyyi sa soowa nag ne yàlla moo koy bay jaamu yàlla gi moom yàlla la ciy féete da ngay def lu la neex boo dee mu tàmbal la àjjana amma wërsëg yi nag yaa ci féete sa bopp sàcc ak war ak jëlee ci jaamu rek lépp rek bokk na ci biir ndax nga am dara gëmatoo ne yàlla lay jox kon loolu njuumte bu rëy rëy rëy la boo xam ne soono rek lay jural doomu adama bokk na ci tawxid bi li tax muy mayee naataange itam xam ngeen ne naataange moom ñaar rek moo koy indi mooy ñiy produire bañ a ëpp ñi nga xam ne ñooy consommer waaye fu tawxid amul nag ñooy consommer ñooy ëpp ñooy produire boo seetee fi mu ne réew mi ñiy liggéey di jéem a am ñooy dundaat ci seen kaw a leen ëpp suuf te la ñuy dundee ci seen kaw nag doon luñ am ngeen te borom bi dana woon wala takuloo amwaalakum baynakum bil baatil bu kenn lekk alali kenn ci neen foo lekk dara moom nit na fekk ne am na njariñ lu jóge ci yow lu ñëw ci moom waaye fexe ba lekk dara moom nit ci loo xam ne la nga koy jox da ko amul benn njariñ xam nga jël ak wëñ rek yëy gura yàgg bi ca fas fa ay fas fas jox ko waa ji mu jox la 1000 francs waaye yow 1000 francs bi boo demee dugg ci restaurant añ ci moom wëñam googu foofu ci foofu ci añ boobu koy fukk du ko du añ wëñam googu nga ko jox yow kooku baat baat li ko li ko ko remplacé baaxut loolu nag moo fees dal ñi nga xam ne dañuy joxe ci seeni alal te lañ leen koy remplacé baatil lay doon benn baatil la buñ leen jox fii wala baatil la buñ leen di yóbbu xeet loo xam ne du mën a ne loo xam ne moom du mën a ne ndax fekkee na da ngay joxe ci sa alal yaa ngi koy jàpp mu remplacé la li la yàlla santoon ci jaamu yàlla nga jàpp ne lii la doon la loola doon joxe lii dana da ko mën a remplacé yóbbu xeet am ku la dig loola kooka ma nga lay nax lay nax borom istabara alladina tubiu min alladina tabaau wa raaw al azab wa taqataa bihim al asbab wa qala alladina tabaau law anna lana karra fa natabaraa minhum kama tabarau minna ñu ngeen génn ci noonu tey te lu ne ngeen ko doon bicc tey ngeen a génn ngeen ci noonu bu dellu woon àdduna dañ leen bàyyi ngeen dem ci tool yi ngeen def fa natabaraa minhum kama tabarau minna ah ka nga xam ne moo la teewoon yow wàcc fa nga ne oto bu rafet yaa koy war ba gën a sedd ngay dëkk ngir rek waajee daw di la jox ngir nga ne ko lii nga may defal yow xeer laa la koy fay mu dem na nga ne ko génn naa ci yow ah wata muy mbàcc loxo ba law ànd la naa kar rek tey bunu dellu woon kon nag ñun eggagunu foofu ba tey yooyu ay xew-xew la yu ne yàlla wax ca kanam eggagun fa ku fa eggagul nag na nga ko moytu bala nga fa yegg kon nag alquran jàng ko loolu lay jariñ daf lay wax li nga xam ne moo nekk ci sa kanam la cay njariñ nga jëfandikoo ko la ci du njariñ nga wax ni kon tawxid su amee kenn ku nekk saw yàq ngay dunde kenn ku nekk saw yàq ngay dunde wala loo jot ci alali nit dafa fekk xolam daf caa tedd te dafa fekk itam da nga koo defal lu ko jar da nga koo defal lu ko jar ndax ñeen ñi daan jox ci turu diine loolu waxuñu ne buñ jox nit ki waaye dafa fekk na la muy defal nit ñi sax moo gën la ko nit ñi jox ki nga xam ne moo tiiti nit ñi ci diine di leen jàngal di leen yar ci lislaam kooku lañ koy jox ci diine toll la wuteeg lan leen di defal kooku kooku waxuñu ne day def leen exploité waaye pëluñu ko sax moom mënuñu ko fay waaye nag bu fekkente ne nag defalu leen dara ci diine nag du leen jàngal benn masala du julli ci seen kanam ñu mën xooroy amul dara lu mu mën a jële ci moom ci diine ba noppi muy lekk seen alal nag kooku mu ci bële ne ki yées ci bindéef yi sarrul waraa la wax sarrul wara alladina yaqutuuna bi diini amwaalan wa yaquluuna nee na ki yées ci bindéef yi mooy jëy kuy jël alal ci turu diine di ko lekk jël ko ci turu diine ba noppi lekk ko joxe ko ci soxla si diine parce que buñ lay jox ci diine da ngaa wan ne yaa ci lekkal diine ci soxla si diine nga koy def fekkee buñ la ko joxee nga def ko ci sox soxla si bopp nag nee na yaa yées ci nit ñi mu ne butoonuhum takuunu kal xusuuri xadal wa kal buyooti duuna suuri nee na ëllëg buñ leen di mbugal seen biir yi day koy réyal ba mu toll ne ay pale ñu sol ko ay jina ki jàmm ay jàmm tas al aqaaribu ma al xayaat fiha bila mawtin ma asab kon loolu li koy maye nag mooy am tawxid ci am tawxid moom fu muy dugalu ab dërëmam ngërëmul yàlla la koy wut ndax xam ne ne yàlla rek a mën a fay te ku ko yeeyoo it la koy jox ku ko féete fu jar mu jox la koy la koy jox loolu nag su amee kon bu boobaa ah ña doon toog di xaar a dund ci loolu dinañ liggéey su ko defee politique daal di bari ñii liggéey daal di bari waaye soo fekkee am na ñoo xam ne xam nañ ne boo toogoon ci mbedd mi dong dogalee jigéen ñi dem marché daal di def sa géew teg say petaaw léegi nga am ci dépense waaw boo demee ci marché da ngay gis géew yi benn way géew ñu wër ko mu yore xànca ki buuma ki ay jara ki lu kenn xamul bala faa jógee seen dépense yëpp daanaka dana jël genn wàllu mbéyum loolu nag mënta ànd ak am réew moo xam ne muy jëm kanam bokk na ci li muy joxe moom tawxiid itam nag xel mu dal xel mu dal te xam ngeen ne doomu aadama li gën a rëy ci li muy wut mooy lu dalal xelam fi mu ne gars yi compte bancaire yeeg yëpp dañ koy dalal xel rek waaw dañ koy dalal xel léeg-léeg sa xel nekkoon ca banque wëri banque ba del si waat sa xel dal ne ah man kat denc naa nangam sakkiina lañ ci wut waaye fekk na liy dalal xol dëgg dëgg dëgg dëgg nag mooy tawxiid ala bi zikrillahi tatma innul xulub waaw ala bi zikrillahi tatma innul xulub kon nit ki su amee tawxiid wéetal borom bi tabaraka wa taala lu mu ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk du tee day sa personnalité am ndax day xam ne du feebal ci kanam kenn parce que ki ngay feebal ci kanamam da ngay jàpp ne raw na la ki am tawxiid nag day gëm ne mbir yi jeexagul course bi téeragul waa ji la raw mu ne wi fa ko fasam bu tax nga naan ko man dëpp naa yaa raw déedéet labbaleel rek course bi jeexagul de borom bi wax na ko a yaxsabuuna annama numidduhum bihi min maalin wa banin nusaari'u lahum fil xayraat da ngay ne defe ne ku ma jox alal jox ko mbooloo rek raw na nit ñi bal laa yasuruun rawul de kaay ma wax leen ku raw inna alladina hum min xasiyati rabbihim mushfiqun walladina hum bi ayati rabbihim yuminun walladina hum bi rabbihim la yushrikun walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun ñooñu raw ñooñu raw kon ki la romb ak alal ak mbooloo gannaaw yow yow daa samay bagal topp ci waa ji booba raw déedéet xool ko ci inna alladina yi ba xam fu mu ci toll min xasiyati rabbihim mushfiqun koo xam ne fu ñu tudd yàlla bu tiit walladina hum bi rabbihim la yushrikun du bokkaale ak yàlla dara yuutuuna maa aataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun day def li muy def ci lu baax te du bàkk du bàkk fu mu toll mi ngi tiit ndax xamul yàlla nangu na comme ni borom bi ne ulaika yusaariuuna fil xayraat ñooñoo daw jëm ci lu baax te wahum laha saabiquun ku dul ñoom ñoo la ci gis kon moo tax ci am tawxid borom alal ak comme mën a doon doo ko mën a tax a dellu gannaaw doo tax mu mën a feebal sa kanam itam xoola xaaroon ba mu génneeg alal ja gaa yi amul tawxid amuñu xam-xam mais yaa layta lanaa misla ma awtiya qaaroon innahu la soo azin azim xaaroon moo rëy moo rëy sens bu doon Sénégal ñu ne moo liggéey ndey wa innahu la soo azin azim xoolal alal ji mu am rek wa qaala alladina utul ilma waylakum sawabullahi xayrun liman amana wa amila salih wala yulaqaaha illa sabir borom xam-xam yi ne leen tuub yéen de tos kari ngeen kii ngeen di ñeeg alalam ji xanaa xamu leen ne yoolub yàlla moo gën leen yor borom bi ne fa xasafnaa bihi wa bidaari bil arda fa maa kaana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa maa kaana muntasira borom bi ne ma xëy wax suuf mu mottu ko moog alalam gaa yi ko doon ñee nag jàq ne ah lawla an manna allahu alayna la xasafa bina bu nu yàlla yërëmul woon mu boole du ci ndax kat lim defoon danu ko dàq rek danu ko gën a man rek waaye gënuñu koy yéene wala benn waaye romb la ndëggte goo xam ne nga daan mooy waaji su ma ko baroon kooku rek bis buñ koy alak mën nga caa bokkaale moo tax ñu ne lawla an manna allahu alayna la xasafa bina kon ñooñu la leen may gisuñu la xaaroon a am mooy xam-xam bañ am tawxiid bañ am moo leen may gisuñu lam am waaye ñi ko amul moom gis nga li di ko ñëwee kon yooyu yëpp ay samaraat la ba ca gën a rëy nag mooy tàbbal gam lay tàbbal biir aljanna ndax képp koo xam ne faatu ga te bokkaale woog yàlla dara kooku yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na da ngay tàbbi aljanna ak say jëf lu mu néew néew la waaye tawxiid nga am kooku moom da ngay tàbbi aljanna même boo defee bakkaar yu jar ñu buggal la ci safara yi doo ko génn da nga génn du génn kon nag tawxiid njëriñam mooy li nga xam ne moom la ab julit war di wut jamono ko ci mu jëlee ñu tudd lenn ci yi nga xam ne yu koy firi la ndax kat niñ ko xamee jaamu yàlla yi genn ku ci nekk dafa am lu koy toj xam nga buñ la jàngalee njàpp dañ lay jàngal nawaaqidul wudu ndax man ngaa jàpp njàpp mu tooy xëpp mais toj na toj na wóogul mais toj na boo demee ci julli mubtilaatu sara il faut nga xamaale ko booy julli xamaaleel yi yàq julli booy woor xamaaleel muftiraatu sawm yi dagg koor booy aj xamaaleel mufsidaatul xaj buntu fiq boo dem dañ la jàngal yooyu buñ la jàngalee faraidul xaj yëpp dañ la nag mufsidaatul xaj yi moo koy yàq mufsidaatu sawm yi mooy tax koor nawaqidul wudu yi mooy tax njàpp mufsidaatu salaat yi mooy yàq julli waaw ana nag nawaqidul iman nag ñu bari boo di laajoon nawaqidul wudu mën nañ la ko waxal nawa mufsidaatu salaat mën nañ la ko mais nawaqidul iman nag dañ la ah iman day toj iman kay du toj ah mais day toj day toj te nag tojee ma gën a garaaw ndax njàpp mi moom su tojee njàpp mii rek moo toj njàppam tisbaar mii rek moo toj waaye njàppam suba ba moom ma nga julli woon suba moom yàquwul te njàpp mi sax su fekkee julli nga ci tisbaar ba pare mu doog a toj it tisbaar ji baax na duñ ne njàpp mi nga julli woon tisbaar toj na comme tisbaar ji tojaale na déedéet bu fekkee dalaa fekk ci koor itam koor gi dog koor gi rek a yàq waaye julli yi nga julli woon ci bëccëgu koor yi kenn du la yàqu na kenn du la jàpp yi nga fi jàppoon yàqu na bu fekkee dala aj makka la it aj gaa yàqu julli yi nga doon julli ci biir aj ga yàqu waaye nag su fekkee nawaaxidul imaan a yàqu nag kooku moom njàpp ya toj na julli ya yàqu nañ koor ya yàqu nañ aje yàqu yi waxuma la yooyu léegi waaye yooyu daawaati jéege yooyu ya nga defoon ba nga juddoo ba léegi lépp yàqu na wa man yakfur bil iman faqad habita amalu wa huwa fil axirati min al xaasirin kon kooku moo gën a mat a xam nawaaxidam moom day bombardé lépp moom la yóbbu benn yoon moom lii moom ku ci yàqu benn bi doo nga yàqu benn bi doo nga yàqu kii nag si yàqoo lim fi fekkoon lépp lépp lépp dem na wa man yakfur bil iman koo xam ne imaanam yàqu na faqad habita amalu wa huwa fil axirati min al xaasirin disiwu dara disiwu dara la in asrakta la yaxbatanna amaluk wala takonanna min alxasirin boo bokkaalee sa jëf yëpp yàqu kon nag moo tax nawaqidul iman yooyu te mooy nawaqidul tawxid ndax iman duñ koy wax tawxid baa tax ñuy wax loolu jar na xam bu baax a baax a baax la ca jiitu mooy bokkaale bokkaale borom bi tabaraka wa taala ashirk inna allaha la yaxfiru an yusraka bih wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha bokkaale moom fu mu ci duggee rek la fa nekkoon lépp yàqu innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar borom bi nee na ku dajeeg moom ci bokkaale aljana arab na ci yow aljana nag ku fa demul safara mooy sa dëkkukaay moo tax mu ne wa ma'wahu an-nar yaram ci yàlla bu bokk na ci bokkaale nag di ñaan keneen ku dul yàlla di ko xettali ko di ko woo di ko ñaan moo xam kuy dund la wala ko faatu la ak di xettali ko ci ñoom ak di leen nisaral naan bu ma amee nangam boo ma mayee nangam ma rayal la nangam ak ci dem ca seeni bàmmeel di wër mel na kuy wër kaaba ga wër moom benn néeg rek la ko yàlla def la ci kaw suuf wala yatawafu bil baytil atiq nañu wër néeg boobee bu yàgg boobee beneen kii kenn du ko wër wala ngay dem ca miir ya di raay wala ngay tibb ca suuf ya yooyu yëpp ci bokkaale la doon lu mën a toj iman la wala nga di leen rendil loolu lépp ci luy toj iman la qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaatiya lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi dalika umirtu wa ana awwalul muslimin sa julleeg sa rendeeg say jaamu yàlla yëpp yàlla rek ko moom lillahi rabbil alamin te doo ko ci boole kenn mu ne loolu la ñu digal wa bisalika umirtu loolu lañ ma digal bokk na ca koo xam ne dafa wut yu mu doxalee boroomam tabaraka wa taala di leen ñaanum ramm maanaam wut ay wasaait yoo xam ne moom nga digaleeg sa borom xam nga foofu nit ñi dañ ciy jóom fii ci Sénégal nanguwuñu ko fi am diine te amul wasila dañ la kuy sa wasila wala julla ñu ne waa kuy sa wasila wasila wasila li muy tekki ci arab mooy lu lay jottali lu lay jottali ci luxa loolu lay tekki boo demoon ca teen ba tiim ko ndox mi mënoo koo jot kon da ngay wut goj bi takk ci baag bi dugal ko ci biir dukki ndox mi bu génn kon goj boobu ak baag bi ñooy sa wasila pour nga jot ndox mi amma istilaax bi ci boppam sax sharia da koo tuddewul noonu maanaam ne nit ci wut ab wasila nit ci l'islam li muy digle ne wut ab muallim yonente yi muallimoon lañ leen tudde mais tudde wut ay wasail tuddewu leen loolu huwa alladi baasa fi lummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum man yuallimu la yakunu mualliman wa yuallimuhum alkitaba wal hikma l'islam muallim la xam muallim koo xam ne day jàngale la xam kuy jàngale su ko defee kooka daf lay war a jàngal diine bu la neexee nag ci loxo nga tuddee ko ne ah diine ji day kii moo ma ko jàngal ci moom laa jaare ba xam ko booba sax yàkkut li waaye diine du ko tuddee moom ab wasila ne mooy sa wasila ci diine déedéet waaye bu demoon ba wér loolu la waroon a doon ab jàngalekat waaye koo xam ne nag da ngay jàpp ne ab cër la am ci yàlla boo xam ne xëy na da koo doon ci baayam wala mu doon ko ci maamam ba tax na yàllaa ko fal garaat boobu ne nguuri adduna yu ñàkk solo yi rek ñoo dul doon lantee garab ah baayam moo doon gouverneur rek kon mooy gouverneur bi kii kum jurati rek gouverneur bi wala kii ministre la comme comme jur ministre la wala kii président la comme comme jur président la loolu ci àdduna bu yomb bi sax amu fi waxuma la nag ci yàlla léegi yonent yi la ko yàlla mayul mayu ko keneen ibrahima ba ko borom bi ne inni jaa'iluka linnaasi imaaman daf caa teg wa min zurriyati bu ne ko laa laa yanaalu ahdiya zalimin dégg laa te gis nga ba muy jeexal te ibrahima daf ne li muy baax baax sëtam yi am na ci kàccoor wa min zurriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin dégg ibrahima li muy baax baax mu ne sëtam yi am na ci muhsinun waaye zalimun li nafsihi am na ci kooku nag bu ko yàlla mayoon garab bi da ko rek wa min zurriyatika rek kon zalimun li nafsihi boobu yilif ah kon kon musiba xam ah ibrahima moo nekk karaat bi mu egg moo xam ne yàlla ko garantel ne moom wa ma kaana min al musrikin li ko alquran tudd tudd ko benn yonente juróom benn fukki yoon alquran tudd na ko moom ibrahima ba ne yonente bi alayhi salatu wasalam ittabi millata ibrahim kooku garab bi mu am te teewul ay sëtam suñ borom ne ko say sët day ku ci jaar ci njub gi nga jaar ci la bokk waaye ku ci jaar bu bokk man du ma kóllërante ku dëng laa yenaalu ahdi azalimin waaw nun nag nun bëgg na rek ci moom kii moom ku mu jur rek moom lam baax na nañ ko topp boobu la si boobu la si wala bëlu wala bëlu ci mbiri adduna yi rek sax yi gën a ñàkk solo wuute bi lay defar daal rek tekkiwul ne doom ji mu gën a wuute la boo ko gisul daal yu mu defar doo ko ne ko defar loo say daal kon nag rawatina lu toll ni nag sa mbirum diine nga di ko confier koo xam ne xamoo benn qualification bu mu am lu may ne bàyyee ma ko doonoon rek saw lay ci loolu daal loolu doogu la waa ji lu mu jàng ak fu mu yaroo nga ne xaw ma ci dara daal sëñ baa ko jur rek kooku erreur la erreur la te loolu man dañu delluwaat ci mbindi mag ñi waaye man damay seen mbind luy dénoncé loolu boo demee ci téere bu ñu wax nax ju xabaar ilaal sëñ Tuubaa ma nga fay wax daf ne waalam bi an na maa tafaawutul wara doomu aadama li muy rawee morom mi kaay ma wax la ko déglu ko bu baax parce que yow leen ñun ñu da ngay daal di soq mbaxana rek di kilifa géej ñëw est ce que moo la rob xoolal critères yi suñ tubaab wax ne moom la lay rawee ba xam raw na la cim nit lii wala buñ ko juree wala fii rek boo boo séedee rek sokkal mbaxana toogal ci suuf déedéet daf ne waalam bi annama tafawutul wara ñu ne ha mu ne bil ilmi wa diini yakunu fasbira bil ilmi wa diini yakunu fasbira bil ilmi wa diini moo la ëpp xam-xam gën la ko jëf jël si waat ne wa bihima ci ñaar yooyu ma la wax yafdulu lay gëne man xat fadala ku gën ci la gëne waaye laa bin kisaabihi li man xat yasala mën ta gëne ci ne moo askanu ci baaw bu kawe min jihatil ansaabi ummin wa abi moo xam ndey la wala baay kon nag fa fiihi majtahid ma abtaadi kon nag ñaar yii boo bañee ku la raw demal góorgóorlu ci al ilm wa diin jàngal diine ba xam ko jëfe ko soo ko defee kenn rawatul parce que adduna course la saabiqoo yàlla dafa suñu ne saabiqoo course leen saabiqoo ñëpp tolloo départ la ab course moom bu amoon ñoo xam dañ leen a yoxal ba pare doo ko joxe départ kon ñooñu da leen defal fa war te kiñ ne ba mu juddoo la la raw kooku dañ koo yoxal ki nga xam ne dafa liir bi daal judd rek ñun liir bee leen gën liir bee leen gën loolu loolu waaw te liir bi départ dut ba tele jàgg ba léegi dana jaam yàlla liir bi judd tey gën lu ah loolu loolu kon maa luwut loolu ko gën mën maa luwut te liir bi ñun fi dikkee la fi dikkee rek wallahu axrajakum min butooni ummahatikum laa taalamuuna shay'an liir bi xamul dara laa taalamuuna shay'an xamul waaw loolu lu ko fi jiitu di jàng ak julli noo ko raw su juboo bëgg loo raw nag kon kon mbir mi maa doon départ bi moom ñëpp a tolloo tolloo yaa ayuha nas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa ñëpp noonu lañ ci ñëwee góor ak jigéen a leen jur borom bi dog na ne saabixoo na aywa départ leen rek rawante leen ci jaamu yàlla fastabiqul xayraat jëkkante leen yu baax foofu la nit ci rawee mooy ci ëpp xam-xam gën a jëfe xam-xam baax ci la nit ci rawee borom su ko defee kon wasaa'il yooyu nga xam ne nit ki daf koo wut nag doxale ko digganteem ak boromam jàpp ne ñii balaa mën a ñaan yàlla il faut mu jaarale ko ci ñoom loolu moom bokkaale na ñaari fois moo am yàlla soo bëggee xam ci moom dara moom demal jàngi du rek il faut nga jàngi wutib sëriñ yàlla soo bëggee xam li mu wax ci yow bëgg a xam alxuraan bëgg a xam sunna bul toog yaakaar ne da nga koy gént wala dañ lay feeñu nga naan gént naa ko déedéet demal jàngi suftal dem jàngi ci nit ñi yonente bi alayhi salatu wasalaam daf doon jibril la ko doon jële ci borom bi tabaraka taala di ko jottali muy jàng mu jàngal saxaaba yi noonu lañ ko jottalantee ba mu egsi ci nu iqra iqra moo fi ne iqra da ngay jàng soo bëggee xam kon nag iqra il faut nga am ku la jàngal muqri am maa nag su fekkee yaa soxla yàlla yow nag bëgg mu dimbali la kooku moom nee na ba mu jaaree fenn ligne bi direct la ud'uuni astajib lakum ud'uuni ñaan leen ma rek astajib lakum ma wuyu la doxali wu fi sax benn arfa at ndax at fi sax kon dana xaw a yéex mais fi saa si la lay wuyu wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai ida daani su la jaam ñi laajee suñu ma soxlaa nuñ war a def ndax dañoo war a dem déposé ko poste ne damay bind yàlla leetar déposé ko ca poste ba ca sëriñ ba mu jàllale wala bu faatoo ba yóbbu ko ca bàmmeel ba fa lay déposé mooy poste ndax yàlla jot leetar bi ah waaw loolu loolu bu la ko yàlla defal kon dagal loolu ndax am nga yu instant yoo xam ne su fekkee poste nga ci soxla dana yéex léeg-léeg da ngay am soxla irsa ndimbal yu jëpp yoo xam ne ci minute bi nga ko soxla xam nga ñu nekkoon te bato ba ba muy lap kooku bu ñu leen woon seen ñaam balaa mën a dem ngeen déposé ji ko te seen poste ya ngeen am bu fa jaarewul yàlla du ci jot du sotti xoolal Yunus ba mu nekkee ca biiru jën wa jën wa wan na ko bu ñu ne koo dank mais dafa communiqué ak yàlla directement laa ilaha illa anta xoola anta la waxul huwa de waxul laa ilaha illa huwa mais laa ilaha illa anta subhanaka gis nga kaaf gi la jëfandikoo liw subhanahu inni kuntu min azalimin kooku gëm na ne fi mu nekk borom bi tabaraka wa taala xam na ko te moo ko fi mën a fekk ndimbalam moo tax mu ne yàlla yow rek yaay buur bi yow ku la jaam man day damaa tooñ moo tax lii ma dal dal ma gis nga boppam la tuumaal néewul yàlla yaa mën na toog mais def mais def na inni kuntu min azalimin borom bi tabaraka wa taala musal ko kon tawxid fokk nga am lu mel noonu mooy booy jàng wutal ku mën a jàngale mu jàngal la kuy jàngale alquran ak sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam bu leer mu jàngal la ko nag taxul nga nekkub jaamam wala nga nekkub surgaam bokkum julitam nga rek moo xam ne boo ko tanee dimbali ko bu la tanee dimbali da nga ko war a maal nag ngeen xam-xam di nga jot dem jaare ci moom wala taxul nag nga nekkub surgaam boo xam ne moo la moom léegi fu ko neex la lay jaaral ndax loola moom it bu ñu ko ko defoon moom it du tala moom kenn moom ndax moom it des koo jàngal waaw bu fekkoon ne moom it ña ko jàng dañ ko def surga continuer kon du tala am surga moom du tala am surga kon jàngal nit taxul nag muy sa surga abadan boo xam ne fu la neex nga koy jaarale sab nawlee mën naa dem sax ba raw la su see nag na la wormaal ngir xam-xam bi ak mag gi nga ko mag ak jàngal gi mu la jàngal na la wormaal waaye tekkiwul nag muy sa surga boo xam ne fu la neex jaarale loolu dina may boyu ko kenn moom la wax ne maa kaana li basarin an yutiyahu llahu alkitaba wal xukma wan nubuwa summa yaqula linnaasi kunu ibadan li min dunillah en tajuko ne maa leen raw rek maa leen jàngal wala maa yorante bi kon nekk leen samay jàpp déedéet walakin koonu rabbaniyin da nga naan nit ñi nekk leen jaabi yàlla bima kuntum tuallimuuna alkitab wa bima kuntum tadrusun wala yamurakum an tattaqisu almalaikata wa nabiyina arbaban nee na bu leen kenn digal ngeen di jël yonent yi ak malaaka yi di leen defi boobu ay amurukum bil kufri ba'da is antum muslimun nee na ku la na defal yonent bi yàlla wala def ko buur wala malaaka bi digal na la kéefar kon naka moo ko yéesub yonent ko ndeg yonente bi rek ku ko defal yàlla doon yéefa wala ya'murukum an tattaqisu almalaikata wannabiyina arbaban a ya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun kon nag loolu jullit ñi lañ ko xàmmee bu baax a baax a baax ñetteel ba ci yi nga xam ne dafay toj iman man lam yukaffiril musrikin aw shakka fi kufrihim aw sahaha mazhabahum koo xam ne da ngaa jàpp ne musrikoon yi du ñuy yéefar te léegi daanaka jullit ñi dem nañ bay bëgg egg ci loolu léegi li ñuy wax dialogue nañ dialogue ak yeneen diine yi nañ déggoo ñoom nangul leen ñu nangul ñu lañ ne woon laa abudu ma taabudoon léegi ñun da abudu dañ dindi laaj kon léegi léegi abudu ma taabudoon waaw abudu ma taabudoon gannaaw ñu nekk jeneen diine suñu xam ne gannaaw suñu mbokki nangam yi suñu mbokki jeneen diine yi kat tay la seen feet gi noo ngi leen di ndokkeel noo ngi leen di ñaanal ku ca faatu nga naan kenn gënu ko mais ci gannaaw am na ko fi faatu woon loolu la ci jullit ñu wax kii kenn gënu ko kenn gënu koo baax bi loolu loolu kon yow jàppoo ne kon lam nekkoon sirk la kon yow wéral nga diine jam nekk yow wéral nga ko soo ko wéralee diine nag yow te diine wératul yow ñooñu ñu bari seen iman toj na ci te yëguñu ko xew-xew boobu fi xewoon ñu bari seen iman toj na ci te yëguñu ko kon il faut ki nga xam ne ab musrikoon la bokkaale ci la nekk nga nangu ne ci la bokkaale bi maa kaana li nabi walladina amanu an yastaxfiru lil musrikin walaw kaanu uli qurba min baadi ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bu la xasee leer ne kii ci waa safara la bokk te waa safara mooy ku faatu ci bokkaale kooku dañuy gëm ne kii ci waa safara la bokk amma soo bëggee baaxal lam nekkoon nag yow sa diine bi rek ñeenteel ba ku fas ne am na geneen njub gu gën a jub njubug yonente bi alayhi salatu wasalaam parce que ñu bari tey ci diine boo nee ci sunna laayam boole woo ci yeneen yi ñu ci boole ñu ne la yow nekkoo ci diine gannaaw jëloo wirdu diw jëloo jullit diw jëloo nangam ak nangam ci la yonente bi nekkoon mel ne wirdu diw wooyu wala julleen koo gi daagan li yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon ku fas loolu loolu sa iman day def sa iman day toj ndax diine bi yàlla teg tampom ne moom la gërëm mooy bi yonente bi alayhi salatu wasalam nekkoon al yawma yawma boobee yonente baa ngi toog akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan yàlla dóor katam tiñe ne lay diine nga andi ca leneen lu ca bokk ne ci ci document bi la bokk te kooku ku bokku ci bokku ci rawat na nga bëgg a wane ne sax ne moo gën la lañ lañ tegoon kase bi léegi ko gën ñu bari soo ne ci sunna laayam rek boole woo ci yeneen yéen ca boole ñu la yow sa diine matu sa diine matu kon nag ku fas loolu moom itam nda yëg ne bay boo mu tuub dellu si waat waaye loolu day toj day toj iman naka noonu ba tey ko jàpp ne tëraliinu laïcité yii yi nga xam ne lay moo ko fi indi seen loi yeeg seen tëraliin ko jàpp ne moo gën tëraliinu l'islam wala nga jàpp ne ñooyam wala nga jàpp ne dagan na sax di ca atte woo ji doonte l'islam ko gën yooyu yëpp nga fas ko loolu soo ko defee te xam li nga def loolu lu la mën luy faj sa ngëm yàlla ci la bokk da ngay gëm ne yii tëra leen jaahiliya la baaxut ak xukumal jaahiliya ti yaqun atte bu dul bopp yàlla mënu la baax inil xukmu illa lillah amara an la taabudu illa iya pouvoir yàlla rek a ko am atte yàlla rek naan atte leen nii inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bilxaq wala tattabihi lhawa fa yudillaka an sabilillah daa wane loolu lañ ko xot def naa la fi ngay sama xalifa attee diggante nit ñi ci dëgg ci li yàlla wàcce li taxkuma bayna annaasi bima araaka allah li taxkuma bayna annaas bima araaka allah sooy att nit ñi da nga leen di attee ci li la yàlla wan waaye du caa génne ay loi yoo xam ne ay nit ay dajaloo di ko tëral kon ku gëm ne yooyu moo gën sariya wala nga jàpp ne ñooyam wala sax gëm nga ne sariya ko gën waaye jàpp nga ne dagan na ma ne sa ci jëfandiku loolu luy toj bokk na ci liy toj iman la ko jëriñ ñu xam bu baax a baax a baax naka noonu koo xam ne bañ nga dara ci li yonente bi alayhi salatu wasalaam indi nga gis jigéen juy muuru na ñoo xam ne jigéen juy muuru rek la ñuy bañ a gis gis ne dañuy ñiñ ñu ay seytaane la ñu rek ñu nangam nangam dañuy jaay diine wala ñu gis góor ko yorub sikkim loola la ñuy bañ a gis wala ku gàttal mbubam su ko defee ñu dañuy dañuy dañuy mbubboo diine la loolu la ñuy wax ne dañuy mbubboo diine waaye bu mbubboowul diine mbubboo diine moo gën mbubboo kéefar ah gannaaw ñaari mbubba fi am mbubbum jullit ak mbubbum kéefar nga sol mbubbum jullit mi ah ñaari mbubba fi wekke mbubbum jullit ak mbubbum kéefar ma sol mbubbum jullit mi di mbubboo li jullit ak jullit booba ma koy doon boobu alors akal ma mbubboo ko sax boobu booba ma koy doon waaye boo ko mbubboo looy mbubboo meneen mbubbi mu booy kéefar moom ñaari xisbu rek am xisbullah wa xisbu seytaan benn nga sol tani xisbullah wala nga sol tani xisbu seytaan kon nag fekkente ne mbubboo diine dañ koy ayibal nit ci comportement ba mu yor loolu koo xam ne yaa ngi gis dara loo xam ne lu wér ci sunna la nit ki di ko def yow doonte defoo ko na nga jàpp ne lii lu wér la man maa sàggan def ko waaye defoo ko ba noppi di ko ñaawlu ak li saboté ka koy def loolu ku ko def lu mën a génn nit ki ci ci diine bi borom bi ne zalika bi annahum karihu ma ansala allah fa ahbata amalahum karihu ma ansala allah rek fa ahbata amalahum nee na yàlla li mu wàcce ku ci sib dara am dara lu la ca naqari rek sa jëf yëpp annulé nañ kon loolu bokk na ci nawaqidul iman am dara loola naqari ci li wér ci yoon li yonente bi alayhi salatu wasalam jàngale ak nag loo ko xeeb xeeb xeeb juróom-benneel ba nga am dara loo ciy jéppi xam ngeen am na jamono yonente bi alayhi salatu wasalam ay nafiq yoo xam ne dañu doon saboote jullit ñi ñu jëm ci ab jihaad ñu naan ah jàngkati alquran yeeg seen biir yu rëy yi jàpp nañ ne jàng alquran rek tax naa mën a xeex bu ñu demee dañu leen wan loo xam ne di saboote di reetaan yonente bi alayhi salatu wasalam suñu borom xamal ko ko mu taxaw bañ jàpp ko mu ne wa yéen a yéen a wax nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko waaye dan doon kaf rek kun naa ndax udu wanal ab dan doon tooñ gaa yi rek xam nga gaa yi koo ci na la rew sa sikkim beeg sa nangam nangam sa nga xam ne sama waaye damay kaf yooyu kenn du ko kafe borom bi dana qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yéen yàlla ak kob yonentam ak alquran moom ngeen di sabote ngi daa kon ne noo ngi jéglu mu ne laa taxtasirul yawma qad kafartum ba'da imanikum te que kafartum ba'da imanikum amul exécuté kenn du leen nangul exécuté la taxtadiru al yawma qad kafartum ba'da imani weddi ngeen gannaaw boo xam ne gëmul ngeen kon am dara looy saboté ci diine boo ko deful téyel sa gimiñ boo gisee ku guddalu si gima mënoo ko guddal téyel sa gimiñ boo gisee ku muuru mënoo muuru téyel sa gimiñ boo gisee ku battal mbuba mënoo gàttal téyel sa gimiñ boo gisee kuy dem ca jàkkale ni romb ka ñëw mënoo dem téyel sa gimiñ waaye lu nekk baat bu nekk nga teg ko ca loolu waxuma bakkaar ba ngay am di jël ci moom tuyaabaam ñu koy jël di la jox waaye yow sax da ngay génn ci biir islam loolu da lay génn ci l'islam bokk na ca juróom-ñaareel ba ak njibar ak njibar bokk na ci liy toj iman te bari na lool nag ci réew mi rawati nag bi mu demee nag bañ di ko publicité ci ay rajo léegi kenn ku nekk nekk naan maa man nangam maa man nangam njëriñ ya ñuy wax ne ñoo ko man suñu fekkonte ne lu wér la dañuy xat lool du ñu woote sax njëriñ fu mu nekk nit ñi xam ko njëriñ fu mu nekk nit ñi xam ko boo gisee ñu koy woote rek nekku fa waaye su fa nekkoon wallahi ñoom dañuy mujj daw sax dañuy tëju sax pour dañuy mujj daw kon jibar nañ ko watandiko bu baax a baax a baax a baax a baax te mooy dem di def lu loo xam ne luy lor lay doon wala doonte sax luy jariñ lay doon waaye ab jibar koo xam ne danaan mën naa dara wala xam naa liy ñëw ëllëg di jéem a gisaanee ko jéem a seet loolu lépp dafa aram ab jullit du ko def yonente bi alayhi salatu wasalam nee na ku dem ci ab jibar ab seetkat mu seetal la la mu la wax gëmuloo ko ñeen fukki fan duñ nangu sa jaamu yàlla gëmuloo ko la ñu wax ne seet na ba pare nga ne jibar bi waxul dëgg ñeen fukki fan duñ la nangu amma soo ko gëmee nag moom nee na weddi nga lay wàccoon ci yonente bi alayhi salatu wasalam fekkee gëm nga lam la wax moom génn nga l'islam bay boobu tuub te du gat waaye sa iman toj yooyu bokk na ci lii toj iman bokk na ci juróom-ñetteel ba muzaharatul mushrikin mooy di dimbali bokkaalekat yi yéefar yi di xeex jullit ñi nga di leen jàppale moo xam ci ay renseignement nga leen di jàppale moo xam ci ay moyens nga leen di jàppale moo xam sax jàppale moral la nga naan daal wax nañ dëgg la nga ne américain yi dal ci nga ne américain yi li ñu def baax na waay dañoo war a dal ci ñooñu ñooñu baaxuñu loolu rek soo ko defee mën naa toj sa iman mën naa toj sa iman kon dimbale yéefar ci kaw ab julit ak façon dimbale boo ko mën a dimbali loolu day toj ngëm yàlla nañ ko wattandi ko bu baax a baax a baax borom bi nee na wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum ku allié ak ñoom ànd ak ñoom ci ñoom nga bokk ku leen faral ci ñoom nga bokk wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum ci ñoom la bokk juróom-ñeenteel ba ku jàpp ne am na ci nit ñi koo xam ne am na daraja bu muy egg boo xam ne sari da koy teggi ko mën naa bañ a julleeti mën naa bañ a woorati mën naa bañ a defe dara nga jàpp ne li nekk wala ban yow loolu soo ko fasee sa iman toj waaw loolu soo ko fasee sa iman toj wax bu fa bu wax bu rabbak atta yaqal yaqin soo jàppee ne nit ki mën naa egg foo xam ne sare da koy wàcc bu ko neexee du julli bu ko neexee du woor bu ko neexee di naan sàngara bu ko neexee di sëy ak jigéen joo xam ne dëganu ko wala di takk ci ay jabar loo xam ne l'islam mayu ko ko nga jàpp ne loolu lépp moom sañ na ko nangul ko ko jàppe ko nit ku baax yow loolu sa iman day toj ñu ko xam bu baax a baax a baax loolu ku ko def te xam li nga def sa iman day def kon liy saria inna jaalnaaka ala sariatin min al amri fattabiha wala tattabih ahwa alladina la yaalamun innahum lan yugnu anka min allahi shay'a wa inna alzalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin inna jaalnaaka ala saria fattabiha waaw toppal saria moo tax ñu ngay dégg ñu naan saria bi kii la waaye xaqi xabaar borom bi saria bi la toppalu ah ana xaqi xabaar fu mu ko tudd foofu inna ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun kon ku la bëgg a doyee dalal sharia naan la ki nekkul ci sharia ci xaqiqa la de waaye xaqiqa ah xaqiqa islam bi sax duñ ko nangu ci l'islam ndax l'islam tuddu ko noonu bu fekkente ne lu am la mooy ixlaas ixlaas te al amal wal ixlaas kenn mënu leen a taqale mi ngi mel ne sa mbubbi li fare kaw ak li fare biir boo sotti woon ndox fii tey mu daal di jàll ci biir léegi lu xew fii xew fee ku sa sare ay yàqu sa biir yàqu na waaye sare abi yàqu kaw gi dara baaxul ñu ne biir ba baax déedéet bu biir ba baaxoon biti bi baax bu biir ba baaxoon biti bi baax arab yi wax nañ ko kullu ina in bima fihi yam ndax ñu ne ndab lu nekk la mu def lay seet waaw ndab li loo ca def buy seet ci suuf la ca nekk ay seet kon nit ki li muy feeñal ci ay wax di ko feeñal ci ay jëf noonu la biiram mel di wax waxi yéefal di jëf jëfi yéefal ba noppi ñu ne kaw gi moo doy waar da koy da koy nëbboo rek waaye biir ga lu baax la batil la yor musiba la batil la yor baatil la waaw waaw léegi suñ mag baabay Seex Alaaji Maalik nee na bépp baatil boo xam ne dëppoowul ak sariya boo koy bind nee na binde ko laam bu ko binde noonu nee na bépp lañ ne baatil la yor nga natt ko dëppoowul ak sariya nee na binde ko baatil di laam bindil noonu nga def ak laam nee na binde ko laam baatil dafa war a dëppoo ak sariya waaw fukkeel bi képp koo xam ne da nga dëddu diine yàlla ji nangu woo koo jàng nangu woo koo xam lu nangu woo dem fu ñuy waaraate lu ñu wax nga jàpp ne diine moom faragat am na fi ñu mel noonu te kat bu ñuy wax ci diine nag ñu ne kenn gënu leen koo xam nag te duñ dem fu ñu koy jànge mosuñu koo jàng duñu déglu ñu koy jàngale te nag jàpp ne kenn rawu leen ci moom la borom bi naan wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbihi thumma arada anha koo xam ne soo ko nee lii alquran la wax la alquran wax lii la sunna yonente bi alayhi salatu wasalam wax mu ne yéena ko interprété noonu da ngeen di dagal diine ustaas yi dañoo defe ne ñoom doo nga xam diine toujours da nga ko fiy dégg ñu wax comme docteur yi jàpp ne ñoom doo nga xam médecine ah ustaas yi bañ na ñoo xam ne ñoom da nga xam diine parce que diine ku ko jàng ko xam boo ko jàngee yow daal ne ko ustaas rek bu fekkee ku jàng diine mooy ustaas waaye nag jàngoo ko jàpp ne du lu ñuy jàng te yeneen yi ci des yëpp lu ñuy jàng la ndax mboolem lu ci gën a garaaw njuumteem gën a garaaw mooy diine médecin bi mën naa juum li mu juum erreur bi ci yaramu doomu aadama yi donc day bu juumee même ba bëgg-bëgg yépp ci suufam lañ war a nekk moo leen fare kaw ndax mboolem luy bëgg-bëggu intérêt bu doomu aadama bi di bëgg suñu boroom wax na ne la ilaha illa allah wéetal suñu boroom ak topp yonente bi alayhi salatu wasalaam moo leen war a gënal loola bu demee suratu tawba aji na fa aaya boo xam ne tudd na fa mboolem masa